man fidèle auditrice RFM la Fatim O 15000 laa waaw man maay Naba Jaba non non kolos woote ci kaw ci kanam merci.